salaamaaleykum mbokk internet bu Guédiawaye info TV ñu ngi leen nuyu di leen ziar ah, tey ñi ngi encore ak euh, suñu consultant maam Less la coach su Mame Less moom nga xam te ne moom mooy faral di ñu décortiquer le combat moom te ne am na ñu jóge ci bis mu doonoon bis bu mag diggante la de numéro 2 ak booy Niang bis boo xam te ne bëri woon na ci trop mais ñëpp gis nañ ni mu mujjee samedi bi ñu daal di ñu daal di weesu euh, tey loo tax ñu ñëw daal di toog ki xam te ne mooy le grand chroniqueur Mame Less nekk également kër nekk également donc euh, chroniqueur bu sunu làmb ñu bàyyi ko rek mu nuyoo ñu doog a euh, tàbbi donc ci ci waxtaan bi maam ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi leen di fay auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim maa ngi leen di nuyu di nuyu waa Guédiawaye info di nuyu xaas begaay ak càndum Je suis mon frère comme d'habitude Cheikh Diop depuis Allemagne Laay Diop depuis Toulon Khady de suma sœur depuis Allemagne de Malik, suma rak suma Diop grand gore, grand Djibi, Jean Claude depuis Les Mouraux. de nuit Pape depuis La Boker de nuit khaddam Diop depuis Darmoussi, Moussi Toulon Ndey Diop suma famille ci déplacement bi ngeen déplacé wu ñëw fii ci daara ji. alors maam ñu jógee ci combat boo xamante ni mën naa ni coow li bëri woon na ci trop diggante la de numéro 2 ak boña Niang pour euh, aller très vite rek ñu daal di wax ci préparation ñaari mbëri parce que gis nañ état de forme ku ci mel ni mooy Boy bi mu andi coow li bëri ci trop technicien yu bëri daal ci wax noo gisee tamit état bi ñu andi ñoom. bon boña état boobu rek la mën indi parce que comme xam na ne euh, luur la doon bëreel te Lac de guerre ku ko xam-xam ne ku ñeme entraînement la lak de guerre ku ko xam-xam ne ku ñeme bëri la ku nango yagali combat la te combat am du du yomb mukk quoi parce que bo xolé boña état bi mu indi liggéey na doole indi na loxoy charger nako na na ci combat bi aussi mais nak lamb mel non lamb en général chaque fois lamb surtout lamb yu mag yu melni dina bari ciow lelek dina bari détail mais lamb bari na ciow bari na problème mais lépp lépp ci jamm rek lay doon inshallah rabbi waaw ñu ñëw tamit ci combat bi bi ñoom ñaar gannaaw bi ñu sumee ko ñëw daal di taw at bi ku nekk ni nga abordé sa combat mm-hmm. non non combat bi na parce que ku ne neexu rek daa fekk da ngaa jëflantewul parce que <laughs> ñun ñëpp ay sportif lañ yaa ngi dégg parce que boo préparé athlète pour combat bi dem ay huit mois yu demee noonu nga gis kii dem géej di gis liggéey métti ba fay liggéey booy ñaa dem fi Chine jugee Chine dem dem France entraîné ji bu yokki doole parce que xam nañ ki muy tasel am na legi momit liggey na doole yok na dooleem am na doole aussi indi nako wané wane bëggon na aussi jëflante ak Lac de guerre pour nit ñi bëkk amateur yi bëkk mais lamb mel non en général euh chaque fois li ngay indi ak na la nit ñi yabé bo xolé Lac de guerre ci signature contrat yi euh, mi ngi doon wax naan Boy Niang dama lay door doon dinañ xex ak yow dinañ def nangam mais lamb bu say mbokk toog ak yow ba waxtaan ba yab la bo ñëw da nga indi leneen lu may parce que la mu déparé woon ca combat ba waxoon naa leen ko yéen ñi nee naan bu ko indee Boy ñaar dina ko waaye di loo. ñoom ñaar ni ñu bëree bi arbitre sifflé ku ci nekk nii nga abordé sa combat. waaw Boy ñaar ku ko xam xam na ne genre comme di ma la tacticien la maanaam dina wat nit ñi ne maa ngi attaqué mais du attaqué parce que du mbër muy song du songu kat. gaa combat bi song na ci ñetti yoon Lac de Guiers song na ko aussi parce que nit ki bu ñuy wax dañuy wax loo xam ne moom lañ xam bu ne Lac de bu ne man song naa ñetti yoon te sama at bi waaw boo ñaa bu ne song naa ñetti yoon ne Lac de Guiers songul aussi kooku maanaam waxal sa bopp la kooku mais nit ñi seetaan defuñu parce que nit ñaa ngi gis ñi ngi seetaan bon donc combat la daal bu waroon dox seen diggante ñoom ñaar muy diggante Pikine ak Guédiawaye Lac de Guiers préparé na combat bi comme il faut Boy Niang préparé na combat comme il faut kenn ku ne ànd nga ak say mbokk ña lay ñaanal say xarfa foofa ñëw jël sa temps combat bi aussi mystique bi da ci am yoon parce que mystique bi aussi kii dañ ne ko na ko na sa mystique teel a pare kii dañ ne ko na nga guddeel mystique bi parce que mystique bi bu guddee yaakaar naa ci lay combat bi gën a am favorité ci yow que kee teel a pare parce que kee tamit dañ ne ko peut-être cumbukaayam dañ ne ko teelal pare mystique bi waaye làmba mel noonu kenn ku ne say débat déem nañ la ko waxee noonu ngay jëlee sa temps defee ko noonu même buñ la dee dagg xaalis dana la ko jaral parce que làmba mel noonu mais nag préparé nañ combat bi ñoom ñaar parce que ku xool ñaari athlètes xool ni ñu sumee nga xam ne Lac de Guiers préparé na combat bi Boy Niang préparé na combat bi voilà ñoom ñaar ñëpp. comme ni nga waxee mu doonoon làmb tegtal donc mystique bi daal ci am wàll mais ñu gis ci biir combat bi comme par rapport yi doon xaar euh, sañ-sañ bi des trop ci côté ñaari mbër yi. non boobu mooy li ma la xam nga grand combat nit ñi bëri dañ ciy bëgg mu fuur neex. am xeex am bëre yaa ngi dëgg nit ñi maanaam amateurs yi bëgg ndax amateur yi aussi da gis ku dagg billet vingt cinq mille kii dagg billet dix mille kii dagg billet quinze mille kii dagg billet cinq mille ah xale yu ndaw yi dajale seen trois mille seen condamné pour di préparer komba boobu xam nga ñëw combat bi mel ni ñu ko bëggee amateur yi dañuy buudee te bu yàggee lii day dàq sponsor yi surtout ci ci côté Boy Niang sax mën naa la wax ne mobilisation bi baax mais côté Lac de surtout moom waroon na indi safara. bu baax indi jëflante parce que moom combat bi li ko waroon jaay moom ci la bokk da ko waroon a jaay léegi nag déclenché komba bi mais nag fonkal magum jëm bu ne buñ ne ko sa bët bi suuf a ngi ci mun ne sama bët bi amul suuf wala ñu ne ko nen nga nii mu ne lii ma gis du nen xam nga boobu combat dem fenn parce que biñ demee ba ci biir combat bi déclenché nañ xeex bu Lac de Guiers cookaasee gauche boo ñaaree mis ko droite combat bi neex ñi ngi commencé nak kenn ku ne di indi say say sa sem parce que kee technicien la kee day jiita loxoy bayyi gannaaw gi tokki ay tankam lak de guerre dalay jox góos nga yaakaar dara ragal bo ñëwee mu sulli la téye japp ngem parce que lak nee la an luñ ko ti waxal tamit ku xol combat am yag xoli combat am yag dem ci ay combat am heure bu bu la solé ba sulli la loxo droite am nga ca ngem la du ci jog mukk ku xam Lac de guerre la man xawma me mais combat mi ma sétane parce que musuma gis Lac de guerre musuma gis Boy estat lañuy dajé musuma ci dégënté kenn téléphone kenn saxaluma lem kenn saxaluma suukar mais combat bo ci gisé dara ngay nit ko xamné chaque fois nit ñi laaj la ci lamb lo xamné day am solo day laaj nga wax dëgg gi ci ne wax la nga gis peut-être man du man dong gis lolu mais lit booy ànd tamit ànd ci li nga xam ànd ci loo xam ne gis nga ko ànd ci loo xam ne lee fee la xam nga parce que ñun ñëpp ay doomu aadama lañ kenn ku ne xam nga fa ngay mujj àdduna amul solo yaa ngi dégg bi combat bi jëflante bi commencé ñoom ñaar booy ñaar dem na song song bi sax xaw a xaw a yor la ngir bëgg a jàpp Lac de Guiers sulli ko téye ñu jàppante booy ñaar ndengeñ na ko lu yàgg boo xoolee ndengeñ bi yàgg na yàgg woo xam ne tey bu doon arbitre mënoon na ko arrêté ñu bëriwaat mu wax ko ne ko sa ndengeñ bi wàññi ko ndax ndengeñ bu ñu la ko ndenjee sa diggante poitrine bi ak sa loos daanaka action boo doon bëgg def du sotti léegi nag ci lool noonu ñu ngi bëre ñi ngi bëre ba action finale bi am action finale bi Boy ñaar bi ko Lac de di ñuuxu loxo droite bi li ma lax rek mag mu téye bi mu ko téye dafa daw di ngoobu ca gannaaw ngoobu ba sax man mënuma comprendre Lac de en tant que champion yaa ngi dégg yegg foofu booy bi xam nga boo gisee ma la kenn du Balla Gaye action yu mel noonu moo tax boo gisee ma ne kenn du Reug Reug action yu mel noonu moo tax xam nga boo gisee ma ne la kenn du Modou Lo action yu mel noonu moo tax ndax action yu mel noonu ba mu amee boo xoolee Modou Lo deux temps yi mu def contre a seen noonu la Lac de waroon daanee booy ñaa combat bi jeex leer naa ñu bañ am coow mais xale bu la may wet nga japp ngemb droit jël sa loxo jaarale ko ci gannaaw ni nga ko dajale dang ko don dajale ba japp ci ngemb li carrément bo jappon ci ngemb li carrément bo yobbo ci zone kanam ci sa kanam def ko 2 temps dina dina pousse tank appui avant bi yoron pied droit am bi su ko defé nga mën ko xàttar muy jël bu len nañ parce que sa bop ak sa loss bu duggé ci deunam boko ko be mu teud parce que caabi combat bi ci lool la nekkon mais nayaa mooy bi lool amé boo ñaa nee na teg na benn droite ba tey nit ñi mën nañ ko koo nangul parce que lu ne am na yoon mais bi mu tegee genou droitam bi ba jugaat dafa bal loxo droitam bi ci diggante mbagg Lac de Guiers ak fàmb bi jël loxo góosam bi doon jéem a xar jéppét parce que daan na ci ay nit parce que la ngay daan ay nit nag boo ci defee erreur erreur boobu da koy assumé baña indi ay yenn filtration len yenn di filtrer nit ñi di polémique ke nit ñi ay détails non nit ki nañ wax li nga xamne moy nek adna yalla yàlla dafa bëgg wax deug ya ngi deug xar nga jéppal ya ngi deug bi nga xaye jéppal loxo lak de guerre ma nga fam mu nekkoon parce que Lac de guerre yàgg sétane ay combat motax ma xamne loxo droite bi comme ponkal la xam bu ko jappul heure buñ ko fàqatee doolee makoy dal te dina rep donc il est intelligent ba nga xamne loxo droite bi le téye japp bu mu tëgër action bi lu muy dem dem loxo ba demul fam mu nekk man diggante boobu mënuma constater benn yoon Lac de Guiers mën faa def quatre appuis ndax xaju fa loxo baa ngi ci kaw ba ni arbitre biy sifflé ba ni arbitre ni mu leen di yëkkatee loxo Lac de Guiers bàyyiwul ngemb Boy Niang mu continuer action bi Boy Niang di jéem a xar jëppan bi muy xar jëppan di ànd ak Lac de di daanoo wet Lac de Guiers da xëcc Boy Niang loxo ba doon xar jëppan moo rëpp ci suuf loxo droite bi ñoom ñaar ñëpp jiital nañ seen benn loxo donc seen loxo yegg na ci suuf beneen bi mu doon xar jéppal bi bi Lac de Guiers jàppee ci kaw ngëm bi mu koy xëcc leneen beneen loxo boo ñaaw moo ñëw rëppeelu muy quatre appuis yu gaaw quatre appuis nag gën na fee gaaw nii parce que boo xoolee booy bawol ak marle noonu la demoon fraction de seconde ndax bosu marle gën a gaaw bañ marle naan day bind ko am na ko ma woo ci staff technique ne ko jaru ko day yàq xaalisam def na quatre appuis te dañ koo nangu defuñu ko donc nag làmb yu dila ngay am deg deg ci nit ñi nit ñi am waxtaan yo xamne chaque fois dang koy waxtaan ñom mu jëm ci lamb yaa ngi dégg muy waxtaanu lamb dang ci wara wax li nga xamne moy mooy nga teg ko taabal ji man nak duma arbitre. kon euh, kot la déggee action bobu non nga xamanteni ni coow na ci kaw la de ñi réclamer réclamé ni amna am site Boña dan kaw Boña aussi ñom dan la de Guiers def na 4 appels kon suma la déggee Boña mo danu ci action bobu non Boña mo mo meuna def 4 appels loxo Lac de Guiers la dañul ci ngembali Euh, image yi fee yaa ngi fi parce que am na loo xam ne bu jarul ñuy polémique kenn ku ne di ñor di di xëcc sa côté que ce soit Lac de Guiers que ce soit Boy Niang man sama xam na mais dama ne la li ma gis laa la wax loxo booy loxo Lac de mi ngi ci ngemb Boy Niang ba ni leen arbitre bi arrêté arbitre bi nag moom mi arrêté action bi moom ko laaj war na cee mën a tontu ndax moo ñu gën a jege à un mètre de de de de nag war naa mën a gis action ba tax mu arrêté combat bi. d' accord na combat bi laaj na ay juge mu ne nañ bëriwaat bëriwaat nañ bëri bi continuer Lac de mi ngi xaw a gëdd foofu booy Niang Boy Niang nee na reculé benn yoon mais boo xoolee diggante bi arbitre arrêté Boy Niang arrière na ñetti yoon ñetti yoon yoo xam ne benn bu ne Lac de Guiers dafa xaw a mépp mu arrière benn yoon dellusiwaat Lac de Guiers méppaat mu arrière benn dellusiwaat looloo taxoon ñu jox ko avertissement boobu avertissement boobu defaraat erreur bee ci nag kenn ku naa ngi yaa daan maa daan mais man li ma gis ak li ma gis ci image yi ak li ma gisee loxo Lac de Guiers ci kaw dëgg dëgg neex yàlla Lac de Guiers mënu faa def kàtappi. jàpp nga moo daan. si moom moom moo jiitu Boy Niang ndax Boy Niang moo ko moo ko gën a suupul Boy Niang moo ko gën a oyof mais nag comme li ma la rek ñoom ñaar ñëpp kenn ku ne yaa ngi yónnee say cumbukaay CNG pour CNG tranché yaa ngi dëgg liy tranché nag la nga xam ne mooy joxe verdict du man. waaye man la ma gis danaa ko wax te ko taabal ji léegi nag ñoom ñëpp kenn ku ne bind nga recours yóbbu nga ko CNG incha allahu rabi buñ ko attee dangeen ko gis ci journal yi ñu génneel leen ko. Euh, bu loolu weesoo ñu gis tamit Boy ñaar doon nañ xam ci moom benn rapidité d'exécution euh, mun nañ doon na mbër boo xamante ne c'était fin athlète ci rapidité am la doon joué moom moo doon doon ay clé combat am mais combat bi rapidité boobu gisuñu ko ci moom xamuñu poids bi la lan moo ko war a réellement. Boy Niang am na ñetti action yoo xam ne heure bu ko defee bu entamé wul bëreem tëju na waxoon naa leen ko ñëw nga fi yaa trois mois xawma ma quatre mois de cela dana téq dana caxabal yaa ngi dégg dana xat jéppal boo xoolee ci biir action beeg Lac de ñetti action yooyu yëpp essayé na ko mais dara jàllul parce que Lac de Guiers bi bu dëgg dee wax jàll rek peut-être bëre bi demeewut noonu mais doole ak entretement bu sérieux nee naa la ñaari athlètes yaa fi xam yu koy def ñetteel bi Balla gay la Modou Lo Lac de ak Balla Gaye ñoo ci nit ñoo xam ne heure boo leen gisul ñu ñàkk combat ñu ngi ci géej gi di fortuuti ñëwaat seen kër toog donc athlète yu mel noonu combat bu mel noonu moo booy ñaa demee noonu donc moo gënoon a xam ne Lac de bi lu combat bi yàgg yàgg yàgg yàgg dana taxaw xaar ko moom mi xale nag waroon naa ubbi hospitalité yi Lac de moom moo waroon ubbi débat bi moom. parce que bu ubbi woon débat bi tey booy ñaa dina gën a indi bëre parce que booy ñaa boo ko bëggee daan danga koy waaxu. indil ko seytaane indil ko safara daan ko mais boo ko mayee ba mu am confiance ba taxaw ba rig-rigal dij ñaari tànkam yooyu sànni ñaari loxo yi ci kanam bàyyi bàyyi gannaaw gi ci gannaaw tàllal loxoom mi boo ñëw dana la séentu doo ko daan mukk bu bëggul nga daan ko doo ko daan mais doo ko xaar danga koy waaxu dem jëli ko daan ko parce que fii ci combat bi toll nii ñu mel nii ñu fay leen xaalis sponsor bi ñi naan ñi daan dañuy daw ñi naan duñ daw combat yu mag yu mel nii dañ cee waroon wane bëre bu neex mais comme li wax chaque jour rek daanaka tëgg ay combat xale yu ndaw xale yi daan dem yibbi bëre bu neex ngay gis xam nga mais mag ñi daal seet naa seet daal tôt ou tard daal xam naa ne daal bu dee nii la ñuy continuer di bëree moom dëgg-dëgg xam naa ne sponsor dana wàññeeku. Euh, après après action boobu noonu tamit ñu daal di gis ne am na benn moment ci fin combat bi euh, technicien yu bëri daan di booñaar bu commencé woon di wane ay signe de fatigue est ce que d' accord nga ak ñoom. Euh, tuuti rek parce que loxo yi day chargé kooku moom foo xam nga déjà boo liggéey volume nekk ci saalu musculation di liggéey ñu xool na yow par rapport ak état bi nga doon bëri Sa Thiès gën nga yokk volume gën nga yokk masse ñaar sa loxo yi day nagam muy man muy keneen ñun ñëpp ay sportif lañ jàpp bu yàgg bi xeex bu yàgg bi sa loxo day chargé donc boo xoolee nee na sonnul sonn na nañu wax ci dëgg sonn na parce que boo sonnul woon euh, instant bi Lac de Guiers di accélérer cinq derniers minutes yu mujj yi dem na ba pour mu remise loxo yi dootu jóg day mépp mbagg yi nii rek dellu wala bu yëkkatee loxo yi tuuti la ko yëkkati wàccee garde bi ba mu baax te loolu na ci def attention garde boobu mu wàccee ba mu baax naan moo ko def exprès ah na ko def ci ñu bañ a xarañ comme Balla Gaye de wala ñeneen ñoo xam ne xarañ nañ ko moom waaw non am na ñoo xam ne seen loxo dañ koo namm moo suppa lañ sa jaay ma waaw seen loxo yi fu ñu ko dóor mu dal looloo tax ma ne la comme dernier moment yi bi bi cinq demi minutes desee ba Lac de Guiers di accélérer combat bi parce que Lac de Guiers aussi foofu noonu li mu mujjee moom la waroon njëkkee parce que man dama man dama calculer woon combat bi moom mu déclenché hospitalité yi ubbi rideau bi xaar Boy ñaa ñëw mu aspiré ko daal ko parce que Boy Niang même moom bi muy sóoraale plaque bi ci biir bi bi muy xar tànk bi di ko arrêté Boy Niang mi ngi koy sóoraale parce que boo en quoi léegi nag ci biir combat bi. bi bi cinq dërëmi yooyu demee mool ci boppam en personne yaa ngi dégg dafa dafa dafa dafa xaajale bëri bi parce que bi boo bi boo ñaa di arrière mu koy cokkaas par gauche di cokkaas par gauche booy ñaa wàcce garde bi c'est que du boo ñaa loxoom yi chargé na boo ñaa dem na benn instant boo xam ne peut-être loxo bi pour mu jóg problème la yàkkamti woon na sax peut-être combat bi jeex diggante boobu mais boo ko laajee comme at la la danaan la sonnul ndax moom mooy xale mais loxo yi moom c'est sûr et certain que woon na alors kër su am na solo ñu bàyyi rek nga tàggatoo. Hmm. waaw waaw comme d'habitude rek maa leen di gërëm yéen di gërëm waa Guédiawaye info ci taxawaay bi di gërëm xaas bekaay di gërëm maa càndum di gërëm suma frère sumay rak Ablaye Diop Cheikhou Diop Laye Ndiaga As depuis Italie moom mu yor fan si club Mame Less bi nekk Grand Dakar xam nga hmm, Malick suma rak di gërëm suma suma sœur Khady Ndiaye xam nga di leen nuyu yéen di leen gërëm yéen waa Guédiawaye info waaw bokk internet yi mi ngi noonu mu doon euh, waxtaan bu am solo bi nga xam te ne seq ko ak le grand chroniqueur Mame Less à chaque fois donc day am solo moom bu ñu faram fàccelee làmb euh, ak Lac de numéro 2 kon day day jaadu ñu daal ñëw dégg ko suñu micro mu daal ñuy faram fàcceel combat wax ñu li nga xam te moom la ci xam euh, mu doon analyse donc bu pertinente bu am solo bu loolu weesoo avant de terminer ñu aborder benn point boo xam te mun naa Arab ñuy interpellé laaj la moo tax combat bi passé on n'était pas présent donc ci événement bi parce que mën naa jàpp ni def nañ lépp li ñu waroon def ci côté couverture médiatique ci côté liggéey euh, mën naa ay trois mois quatre mois bien avant ñu ngi liggéey ci combat bi loolu umpul benn benn benn benn benn amateur bu am te ne tey yaa ngi dund làmb mais bu ñu ñëwee ba benn moment nga xam te tey euh, dara desul loolu accrédité donc les sites nga xam te ne ñoom ñoo war a ñëw ñu daal di écarter Guédiawaye info loolu mënuñu si dara tey def nañ li ñu waroon def mais malheureusement le promoteur n'a pas été reconnaissant donc euh, envers le travail colossal que Guédiawaye il faut entrer d'effectuer au sein de l'arène daal noonu la mujj demee moo tax amuñu si luñ ci wax te yaakaar naan fa am na foo am teen dépassé nañ fa mooy di ñëw di raamal nit wala di ko sukkal foofu dem dañuy liggéey de manière professionnelle lépp luñ mérité ñu daan ñu koy jox kon da doon baax ñu éclairer la lanterne des internautes sur ce point di sant di leen gërëm di sant aussi les fidèles internautes merci beaucoup di sant l'incontournable Bécaye